dañuy wax ne dindi tuuma la ñuy wax. leer wedd weddi dindiwul tuuma. allah kulli alim man ak moom danañ toog. Mm-hmm. danañ toog te dañuy waxtaan. Mm-hmm. dama la doon sax bëgguma ci waxtaan. parce que man sénégalais yi xam nañ ma. xam naa nit ñi itam. Mm-hmm. moom li ma ko mën a wax rek. na xool fenn foo xam ne nii man waxe naa fa dara. wala sama staff waxee na fa lu mel noonu. bu ko waxee ne ko génne te incha li nga xamné ne lañu la may ak li nga xamné ne la aduna bi di xaar mom dinañ ko top mom ba fi mu jëlé wax bi dina ko génne dina ko génne ñu xol ba xam kan ma wax lolu ak lolu lan lañ ci wara def parce que man pour man de lolu amut. pour yow déclaration bobu non déclaration bi def amut Moussa Ndoye dafa depp wax ci néna seen kër dafa tax mu am situation mu dima ma woo téléphone jotuma loolu la wax Abdoulahat la neexee ngeen dem ci Abdoulahat mu jël interview mu di ma woo téléphone jotuma kii expliqué wala nangam ak yooyu man je ne sais pas comprendre ma sax mais nit ku moom téléphone wala ne man làmb ji man du ma man du ma wax ak mbër du def mbër dara du ma wax ak ñoom dama am menageur boo xam ne ni lépp moo ko seere studio production man d' abord moom bëri na ba pare ba bërki démb bi ñuy réglé làmb Moussa Ndoye billaahi wallaahi watallaahi ak Serigne Salim Mbacke ma yaakaar ak Daaru Salaam mi nga xam ne moom laa laay dooral a laaj Abdoulaat ñaat la fay Moussa man sama bopp li ma la wax su amul weeru koor yàlla bu ma ko yeexal. bu ñu dégloo say kàddu yow amul benn journal boo taxaw wala boo ni boo taxaw ni fay naa temps Moussa képp koo xam ne nii Moussa Ndoye bu ko génnee lu ma ko fayal ma doublé ko may ko ko man maa la wax loolu man Modou Dieye Sène. yaakaar naa waaw euh, dama ciy dellusiwaat moom journal boo xëy wan wax naa fa loolu wala loo xëy wan wax naa ko kooku bindal ko ko mu ñëw ñu confirmer ko hmm? bu ñëwee wóor na Serigne mu Mbacké mi ma yaakaar. ak maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm ak ngërëm ma jox ko li mu soxla ma man maa la wax loolu kon mu lay wax ne li mu wax yëpp ay wax la yoo xam ne dara du si dëgg waaw. loolu mooy version Dieye production